téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. bisimilahi rahmaani rahiim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. noo bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp bokki dëkkandoo yu Tuubaa yëpp. di jot liwaat nu yóbbu samay kilifa ni ma ko baaxoo defe rawaat na bu may soobu ci liggéey bi nu yóbbu jóge ci sax Mamadul Muntaxa mii Sëriñ Tuubaa moom dëkk bi jaar ci sax Basiru moom Sëriñ Abdu Xaadir mii sunu jëwriñ ci liggéey màggal gii ak liggéey Sëriñ yu bari yi ko Sëriñ Muntaxa def loo mujj sunu jaaraat ci Sëriñ Seex Jëmb Fall mi jiite xalifa mi Baay Faal yi loolu lépp naa leeral li tax ma wax nuyoo bi fi mu jógee waaye nuyoo bi mi ngi jëm ci bokki taalib yëpp ma jiital kilifa yi ci nuyoo yi ak jëwriñ yi ak ñeen baaxoo àndal liggéeyu mbale mi ñëpp ñoo xam ne kàddu yi soññee ci mbale mi rek la jëm mbale mi waxtu wu bu nu koy soññee dañ koy delloowaat ci ginnaaw ci ndigal la nam nu dikkale woon sëñ Cheikh Mamadou Lamine Baara joxe sëñ Muntaxa ndigal ne ko dama bëgg ñu seetal dëkk bi balaa gani Serigne Touba yi ñëw ñu mun taxaaj bi mu ci kër ga mu ne ma suñ baara jox na ma ndigal loo xam ne joxaat naa la ko nanga dem fa ñuy nase màggal gi seet ñu la booleel ngeen taxaw seetu dëkk bi te nanga dem ci sëñ saa jëm faal mi jiite njabootu Seex yëpp da nga wax ko ma defe ko noonu ci at mooma suñ Muntaxa moo taxawul boppam mbale mi di xëy di yandu ci kër sëñ Touba gii ba tàgkusaan ñu def liggéey boobu ci toll juróom-ñetti fan lépp àgg ca déwén sa ba sëñ Mamadou Lamine Bara waxee sëñ Mountakha ne ko gi na la ko sëñ Bassirou sëñ Abdou taxawul ndax liggéey bi daaw sonn nga ci ci metti na ci mag sëñ Bassirou sëñ Abdou Khadir waxoon sëñ Mountakha ne ko damaa bëgg nga wóotal ma ci say jëwriñ ñoo xam ne damay ànd ak ñoom liggéey bi suñ ma taxaa boole nu ma naa bokk ci ñaan ak sëñ Cheikh liggéey bi sëñ Cheikh Bass ne la nga féete woon ci liggéey bi daaw dara ëpp ko ci solo kon na nga ca féetewaat te mooy seetal dëkk bi ma ne ko kon li ñaan rek ña ma ko àndaloon taxaw ko bam liggéey bi mel na wala mel dama bëggoon ñu maye ma ma àndaat ko ñoom ba ma ko ànd ak ñoom dinaa man a sama xel dana maa daal ci ñu taxaw ko nañ ko war a taxawoo mu mayoon ma loolee te ña ma ko àndaloon nag ñi ci jiitu woon mooy Baye Fall yi sëñ saa jëmb waaye waxtu woon damay wax ne bu ñu waxee sëñ saa jëmb wax Baye Fall yi nag boole naa ci seexi Serigne Touba yëpp ndax noo bokk fu nekk bokk fun jëm bokk ñu doxee kon noo bokk lépp liggéey Serigne Touba bu nit noo ko baaxoo ànd kon lii noonu rek lañ koy waxewaat noonu lañ koy doxewaat àndal ko bokk kilifa yëpp ba àndal ko bokk yëpp ak kilifa yëpp kon nuy soññewaat nag war a jubluwaat ci liggéey bi liggéey bi naka jekk niil daan demee ndax benn sa panu safar lañ ko daan tàmbali waaye bu ñu masaan weesu bisu ashora bi ci lañuy tàmbali réunion yi ak soññe yi ginnaaw bu ñu diisoo kilifa yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci kilifa yi diisoo waat kilifa yi ndigal noo ko jëlee ci sëñ Muntaxa ak sëñ Saa Bas jokkowaat ak griffe yi mooy tàmbali sëñ Saa Jëmb jokkoo na ma moom dem naa fa léegi jot na ndigal foofu yëpp woote na ab réunion démb jëwriñ yëpp ñëw nañ jot lewaat naa ndigal li ngir ñu ànd waajalaat liggéey bi ñu ñu ko daan àndal nag mu nga tàmbalee ci ñi jiite mbooloo yi ci dëkk bi ak li ñuy wax ay chef de zone dëkk bi ñu seddale ko ay zone yoo xam ne bépp bu nekk daa am ku fa nekkal liggéey bi ak ñi jiite daayira yi ak ñuy jiite benn yi ak waa maire bi ak ñëpp woo naa leen démb waxtaan naa nañ tàmbaliwaat nañ sóobu nañ ngir waajal liggéey bi nii nag lañ ko daan defee bu ko defee mu jottali ba ñëpp yéeg ni ñu ngi waajal liggéey bi ba ba ci biir dëkku Touba ak biir réew mi ak bitim réew fu waay man noo mën a jàppee ci liggéey bi nga jàppee ni ci noona bu dee waa biir Touba mi ngi tàmbalee ci borom oto yi tàmbalee ci regroupement benn dëkk bi noonu la ko daan defee ki jiite regroupement chauffeur yi ñu wax ak ñi moom oto yi ñuy déggoo bañ jox ma oto yi boobee buñ ci àggee ba liggéey bi àgg lañ ci daan dolli mooy maire bi am na wér gu ñu ci daan féeti gu wér rawat lu jëm ci gasoil bi état bi lam ci daan jàppee dafa daan jaar ci ministère ba jaar UGC seen coordonnateur ñëw yabal ndawam yi nekk fii lañ war a jàppe lépp jàpp ci at mooy noonu lañ ko doon defee noonu rek lañ ko dinañ ko séentuwaat ni lañ leen tàlleel loxo di leen waaj dégluwaat bu defee nag ñi war a liggéey liggéey bi jëkk bi nag mooy ñu jiite mbooloo yi nga xam ne mbooloo yi nag mooy ñii génn di setal ñi ñu ko àndal nag mooy ñu leen taxaw mooy chef de zone yi bu ñàppee oto yi nañ ko daan defee oto yi ñëw ñu jox bayfal yi jox daayira yi lii jox seen yi yii ñun ñëpp génn ñu bale dëkk bi noonu la bëgg ñu def waat niñ ko daan waxee it niñ koy gën a xam di ko gën a façon ba muy gën a yomb noonu la doon demee daanañ ko def ci juróom-ñetti fan juróomi juróom-benn fan at yëpp benn bis lañ mbale mi àgg ton bi doon ñaari fan lépp di ñetti fan ñu bayaali bàq yi ci biir ñetti fan ñeenteel bu ñëwee ko ren nag dolli nañu liggéey bi dolli nu ci ab sëkk sëkk boobu itam ñoo ngi xalaat ne faawum lu mu gàtt gàtt jël nu ñaari fan ak benn dëkk bi yëpp ak oto yi ñàpp yëpp mu xalaat ne kon ci biir ñetti fan yi bu dëkk bi setee dañu am ñaari fan yoo xam ne oto yëpp dañuy dem ci sëkk bi mat téeméeri oto nangam buñ dee di sarse ba ngoon di sotti danañ fa def luñ mën a xam donte néewuñu dëkk bépp mën na sa ko setal ndax dëkk bépp daa yaatu te fépp dim ndox te day bari foo xam ne boo ko sëkkeetee nga ngëccoo ko daanaka la ngay seet du am njëriñ te bokk nga ca mboog nga jege sa côté bi ci suba saa mu tawaat ndox ma ñëwaat waaye nag danuy def leen man lépp suñu kam kàttan rek te lépp nu fas yéene liggéeyal sëriñ bi sellal ko dëkkam bi setal ko dëkkam bi wàññi jaaxle dëkkan ñi fi dëkk àggale yéene sëriñ bi loolu rek lañ ci façon te moom lañ ci bi moom lañ ci sooboo noonu lañ koy doxee bokki taale bi yii ma bokkal taxawoo gi itam ginnaaw bu ma leen sante jottali seenu taxawaay bu rafet noo ko ànd waroon nañoo bokk jataay bi soññe bii dañoo jàpp ne ci beneen liggéey met mën a ci beneen liggéey fii waaye noo koy ànd ci biir ànd gi nag démb rek tase am na suñ ndey daara joo xam ne mu soxna su Mbàkke mooy mi ngi suñ kanam jëw yi nga xam ne mooy ñi topp ci man sëñ Xaadim Mbàkke sëñ Mortalla Seck ñu dem na ñoom ñoom ñëpp démb ñi ngi fi woon kon léegi nag nañ ma euh, jéggal mënumaa lim ñëpp waaye nañ xam ne kenn ku nekk fa nga ci daan jàppe ak na nga ci nekkoon noonu rek la kenn ku ne ña nga daan soññ na nga leen soññ na nga leen wax na kenn ku ne loo daan jot na nga ko jottali ñu jiite mbooloo yi népp nu mu daan demee daal daan demewaat ba réunion yi bu ñu ko waree defaat bu ñu waree wax ci rajo yi bu ñu waree yebal mbooloo yi bu ñu waree tàmbali liggéey bi fu ñu war a yóbbu oto yi fu ñu war a yóbbu xéwal yi lépp non nan ko daan nase nan ko nasewaat xanaa day yokk suñu yitte rek fedd li suñu laxasaay ndax mu gën a yomb maa ngi soññ ñëpp di déglu di nekk ñëpp di tàllal ñoxoli ñëpp bëgg na ànd ko di ñaan nag ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom bàyyil nu Sëriñ Muntaxa wéral nu ko bàyyil na ko fi waaye nag ñeen daan sax liggéey bi kenn tam kenn ku ne maa ngi ñaan yàlla defal la jàmm ak wér jëli fi mbas mi defal nu yokk defal nu xéewal ba kenn ku ne noo ci bëgg a doxe nga mën ko caa doxe ba liggéey bi di gën a yomb liggéey bi gën a yomb suñu mbir yëpp di gën a yomb te tey rek maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ab tàmbali la bi bañ yëgle na liggéey baa ngi ñëw li ci des nag buñ ci àggee dañ ko gën a wax jàpp nañ nag benn paro safar bi ñu ko jàpp def du sori juróom-ñeenti fan ci weeru septembre non waaye nag bu gën a jege dañ gën a génne date bi ba mu gën a leer réunion ñu war defee danañ ko waxaat noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës bi bokk ci